jukki leen di gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy doole rek ak euh, Abbas Fall moom mi nga xamante ni rek mooy coordonnateur euh, parti Pastef bu Ndakaaru démb nag ñu gis ne moo nekkoon invité RFM matin dafa yëkkati rek ay kàddu ngir xam ne ne kii di Ousmane Sonko rek bu yëkkatee tànkam di seeti homme politique yi lam ci jublu rek nekkul leen rek lu dul nag remercier ji leen ndax seen soutien bi nga xamante ni bii rek am nañ ko ginnaaw bi coowam loolu rek jugee jëm ci ki nga xamante ni rek moo di Adji Sarr ak moom gis ne nag yooyu léegi tànki jàmm yi nga xamante ni rek homme politique yi yëkkati nañ ko ci rek moo tax rek muy dem ah, di leen seeti ngir cant rek ak ngërëm gi nga xamante ni bii rek war na leen ko ah, delloo yemu ca nag moom coordinateur parti Pastef bu Ndakaaru boobu la di Abbas Fall daan na ci teg ne ñi nga xamante ni ñoo yor rek a ak yeleefu doomu aadama nee na mi ngi leen di ñaan rek ñu dem jàppale ji kii di Adji Sarr moom mi nga xamante ni rek moo tuumaal kii di Ousmane Sonko ndax nee na rek jamono ji mi ngi nekk en danger te mi ngi dund nag ay torture yu méttee métti ba tax rek mu ne ñooñu nga xamante ni ñoo yor ak ak yelleefu doomu aadama nañ dem rek sauvé ji ko ci ndax soxla na ko lool ndax kii di Adji Sarr li muy dund ah, nekk na lu metti lool. ñu àddu ci leneen gis nañ rek kii ñu gis ne nag ko daal di tegoon loxo rek ndiki 15 mars bii ñu ah, génn la ñu ko jàppee rek nekkul ku dul état wu Sénégal ñoo ko de ah, terrorisme ak menace de mort ñu gis ne nag kii di Ousmane Tounkara ndiki démb rek waroon naa janoo rek ak juge ba waaye nag ay avocat am nag dañoo daal dugal rek ab recours ngir ñaan rek ñu may leen fii ak le 27 avril ñu mën a ñëw rek indi ay preuve yi wane ne kii nga xamante rek moo di Ousmane Tounkara nekkul benn euh, E-Media moo ñu di xamal waaye nag da leen a jox rendez bi ñu dëtmal ci lañu rek daal di a indi rek yooyu les preuves yi firndaal ne yoon euh, terroriste ñu gis na nag démb sénégalais yi nag daal di nañuy juk rek euh, mobiliser wu ngir jàppale rek euh, Ousmane Tounkara di wane rek seen naqar ginnaaw rek bi état wu Sénégal ak yi ñe lii di terrorisme ak menace de mort sénégalais yi nag daal nañ cay mer ba futt rek génn ngir jàppale rek seen mbokk moomee nga xamante ni bi rek jamono ji mi ngi ci loxo yi ay yoon ñu àddu ci leneen ca diwaanu Caaroy police bu Caaroy nag daal dinay teg ñaari dealer rek loxo kenn ka ay atam ngi toll ci fan fanweeri at ak ñaar keneen ka ay atam mi ngi ci fanweeri at ak juróom ñeenti la ñu leen jàppee rek nekku leen trafic de chanvre indien moom lañ leen rek tegee loxo kenn ki nag ñu ngi ko jàppe ak juróomi kilo rek ci dorog moom lañu ko daal di jàppee ka ca des nag buñ sukkandikoo rek ci laas moo ñu ko xamal nee na ca quartier waxi naan bu Pikine 3 fa lañ ko daal di tegee loxo ak lu toll ko 300 grammes de chanvre indien bi ay 21 heures jotee ci la ko yoon rek daa di tegee loxo ba defeere nañ leen rek jamono ji ñuy wax ak yéen ngir li nga xamante ni moo di détention et trafic de chanvre indien et pour détention moom lañ leen rek tegee loxo muy ñaari dealer yooyu leen ña leen teg loxo rek moo di police bu caaro yi ñu àddu ci leneen ancien journaliste ex président Marseille bi di euh, Pape Diouf ñu gis na nag mu nekk première sénégalais bi nga xamante ni rek moom la mbas mi njëkk a jël euh, bakkanam euh, fi ci Sénégal mu yemoo woon nag niki 31 mars 2020 tey nekk nag 31 mars 2021 muy tolloo ko benn at rek bi ñu ko ñàkkee ak léegi ñu di ko ñaanal nag suñu borom daal di koy xaare rek ca aljana ya gën a kawe équipe bu 24 actu yëpp rek di ko waat ay mbokkam ak i xaritam ak ki am di jàmmam buñ ko fàttee benn yoon ndaxte moom moo nekk premier euh, sénégalais bi nga xamante ni bii rek Covid 19 moom la njëkk a jël euh, bakkanam euh, fii ci Sénégal dañu koy jeexalee rek ak Selbé Ndom ñu gis ne nag moom day faral di génn di wax rek ci loo xamante ni bii rek ñëwagul rawatina nag ci combat yi ñu gis na nag ginnaaw ci ab interview bu mu seqoon nag yenn ci suñuy naataango xam na ni combat Eumeu Sène bile ak Lac de Guiers 2 xamal nañ ko ki nga xamante ni bii rek moo war a daan waaye nag dee na ko waxagul léegi day bàyyi rek ba mu gën a jub si mu soog kaa wax waaye nag nee na combat bi nekkul doole moo koy gagné li koy gagné rek moo di euh, gàllaaj nee na nag bu gënee jub si dana wax rek nga xamante ne bii rek moom mooy jël ndam li ca boobule combat lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daje lay doon ba ëllëg jàmm.